chauffeur yi am nañ ci responsabilité waaye takk der yi tamit am nañ ci responsabilité <laughs> ndax euh, boo xoolee comme ni ko sama mbokk bi waxee ger bi dafa xaw a ci réew mi. xaw a bëri xaw bëri waaw ba fi mu toll nii lu muri di daal bëri na si tali. waaw ba fi mu toll nii may wax ak nii may wax ak yow nii <laughs> xam nga dañuy wax ni chauffeur dafa manqué chauffeur dafa manqué la ñuy wax te pourtant am nañ ñu yor permis yoo xam ne nationalité sénégalais bi dawal tataay di yëpp ay am na ñoo xam ne yoruñu permis transport di dawal tataay. fan la ñuy jaar ñan la ñuy romb ñan la war a continuer. dañ koy lijjanti rek Sénégal fii kenn lépp lañu. terme lijjanti lañu war xam nga tey man su ma bëggee passeport du ma dem di naan ma quittance damay dem ci machine bi tàggat mu jaay ma dañoo waroon a jël. Euh, dañoo waroon a jël lépp loo def infraction boo def ñu ne infraction bi taal infraction bi taal infraction bi taal bu ñu la bañ lay pëyil nga këyit nga dem ci plateforme yi dugal. dugal sa xaalis. mais looloo nga bañ a jaar ci mais looloo nekk système comme nit ñi bi nga appliqué ah, mais arrangé mais il nekk si tali bi nga sëñ bi xam nga ñaata nit lay fa nga la moo hmm. mu jëm si poosu garab yi mu leeree mun naa joxe 2000 mu jëm ci keesu réew mi la moom gën a su fekkee nit la. nga dugal ko ci keesu réew mi ma dugal ko ci keesu réew mi. mais ah loolu du sénégalais yëpp de loolu loolu du ñëpp ah. am na ñoo xamante ni dañuy préféré jaar ci kajoor mii que jaar fële ah. mais xam nga ñun ay responsable la dañuy jiite ay nit xam nit ñu bëri seen tolluwaay am na ci ñoo xam ne fi mu toll nii man xam naa ne duñ jox police 1000 francs te ñu bari rek laa la wax. ñoo xam ne boo leen arrêté dañ laa laaj lu ma def nga contrôler ñu yor pièce complet ñu la bindal ma ñu ne la bindal ma ma def. dëgg la kon ñun li ñuy wax xam nañ ko parce que. xëy dund si lañu xëy si lañu. alors feneen.